Kaapayma ay Kaapayma moom sa bopp moom sa zéro franc dépôt zéro franc transfert zéro pour cent gaawal kaapay ma ay ay ay ubbi sama compte kaapay naanaan nii lay mel samay facture yëpp lay fay ndaanaan nii lay mel jarul sax ngay bouger fi nga toog ndaanaan nii lay mel transfert ngay jot sum si defee code ndaanaan nii lay mel Sénégal def lu Sénégal moom lu Sénégal def lu Sénégal moom ñooy représenté lu Sénégal doon moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ba Sénégal yomb mën retirer 24 heures sur 24 wax ma quelle est la somme ok jarul ngay sonal sa bopp ma ne lijjanti naa sama plan d' action ndax na application bi kapay di gérer samay transaction na ma cash bi dal na ma cash bi dal na ma cash bi dal na ma cash bi dal na dépôt bi dal na transfert bi dal na kapay bi dal kapay ma ay ma moom sa bopp kapay ma envoie zéro franc dépôt zéro franc transfert 0 pour cent gaawal kpay ma ay ay ay ubbi sama compte kpay naanaan nii lay mel samay facture yëpp lay fay ndaanaan nii lay mel jarul sax ngay bouger fi nga toog ndaanaan mel transfert ngay jot sum si defee code ndaanaan nii mel Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0 francs dans tout le réseau EDK. Station EDK, Jollof Chicken, supermarché Low Price. Comme Capema. dina ma jommal de. kaay dafa woor. man de ko commencé ba léegi yàlla la wax du lekk dara na dafa woor kaay na kaay Sousa kaay. waaw déedéet yow toogal toogal moo xam yow. yaa dama nekk yoon. waaye yow dangaa matinal toogal occasion la mu ngi seetaan bàyyi ko mu seetaan kii dégg nañu léegi mu yeewu mu mën laa gis nga xool ko seen ñeenti bët daje moom nga xam ne dafa tintaan yi heure boo jógee rek mu ngi teewal. donc yaay yow ba léegi yow yaa ngi loolu yaay. ma xaaral moo ngay waaj. waaw xoolal dëggaloo woon nooyaay boobu continué ko li ma la wax nga ne waaw. noo yàqam. waaw yàkkamti ci la bokk. wante. am na ci kanam. waaw bàyyi ko mu sol ko daal la. non non garaaw naa solo ci yow. yaa ngi ba faa sore de. allo. mais yow lan moo tax barki dem ba léegi dégguma la gisuma la. loolu dara dama xaw a jàpp rek. waaw mais boo nekkee ci ay yitte aussi man sa jabar la su ma la gisul war naa laa mën a dégg. man xam naa loolu bu baax a baax. ma xoolal man waxatuma sax wax boobu. fii ngay ndogoo tey. déggul ma la xanaa. dama xaw a jàpp. nekkatul sax nag demande ordre la ci kër gi ngay ndogoo. waaw ah, d'accord d'accord incha allah. waa baax na man borom kër gi ñu dem di ñan. mais li ci lu ci mënti xel mais gëmoo. Ah, ok donc gëmoo sama. j'ai entièrement ah, man confiance en toi. non du question lu wér la loolu. ma. dama naroon rek. ma wax. voilà kay nga la ah. man su ma doon takk jabar tey hmm. xaalis bi ma koy takkee yow joxoo ko. dëgg su ma ko takkee ba pare la ma koy yoree yow joxoo kon man lu may takk jabar di la ko nëbb man ragaluma la. ah waaw di ma la wax gëm ko. man takkuma jabar. ah reste toi rek kër da man maa nekk nit boo xam ne. non. man maa la war a wax rassure-toi. d'accord je sais. voilà je sais. mais noonu. kër daal xam nga man li taxul may laajte nii yëpp du question ko fii rek affaire yooyu non man fiiruma sax même ko ma yëpp mais man ma jékki-jékki woon toog teraanga bi nga ma ji kër yi oto yi dem nañu fu ne li waale waay yóbbu nga ma fu ne ànd nañu fu ne témoignal naa la lu ne léegi imaginer di dund di dund ba xëy rek. man soog sama xol nii la toll nag mosuma la ko xol bu ndaw laa yor li nga bëgg nii lu ndaw la man xol bu ndaw laa bu ndaw boobu ñu xëy rek ñu la mën naa crise mbaa ma syncope sa kaw mbaa ma décédé lu ne mën na ci nekk mais nii moom rassure-toi moom. xam nga li ma la wax. Hmm. gis nga genre femme d'affaires yi sooy liggéey ak ñoom. Hmm. di ci dugal ay mbëggeel ay nopp ay takk jabar yooyu boo ko ci dugalee. Hmm. dañ lay yeb. yow noo ko xamee. da lay xeeb. da ngay yow ni nga muus nga de. da lay kii de moo muus. da lay <laughs> xeeb di xool du la teg nag fenn. mujjee gis nga ñii boo dugganteeg ñoom dañ dañ parce que xam nga yor nañ lu dañuy defe yow coogu lan lay jàppee. moo tax bul def yooyu di manqué. moom bis bu ma proposé woon lool. Hmm. te sax nag musuma ko proposé. déedéet du la ko proposé musuma ko wan musuma ko wax musuma ko wan musuma mais. Hmm. su ko proposé woon sax man maa ko dul nangu. doo ko nangu doo ko nangu ba pare yow am nga lu fees sa xol ah mi ngi ku xës ba gis lu fees sa xol noppalu. lu may doyale mi góom xool ku ko xool xam ne li tugul. ma sàngoo mbàjj bi rek. boo duggee ci néeg bi defe ne maa ngi nelaw. Mm-hmm. booba nelawul nelawoo. mais faama man yow man man man yeewu ma yor la ba tey. alhamdulilah kër dan tey ndogu bu neex a neex ngay doon la ko mais wuyu ma. du dégg nga li nga bëggoon dégg. waaw maa leer na naañ. naañ ayca man maa ngi. ayca loo <laughs> bëgg na ko. defal lu la neex. Ah. saafal rek na nga daal. sa saaf day doole te du yéex. du yéex. ayca woo mu saafal ma Basa mu yónnee ma mu yónnee ma oño. allo waa Jees waaw sa maa ngi ci jàmm xola ci moom laa génnee léegi ci Anta fan laa génnee nee na dina ma fay fii ak ñetti fan la wax dina ma fay ah am naa ci yaakaar ndax goro bi ñëw na hé yow bul am jaaxle bu ma fayul dama koy plant ndax nag man fee du ma fa delluwaat retour au moom du ma fa delluwaat bu ma fayul moom dama koy plainte yow toogal rek bul am leen la metti waaw baax na waaw waaw waaw nelaw naa ba gént yàlla. ah yow kër gi neex na ci yow gi da gént rek. torop torop. mbaa doo koy fàtte. xam naa ni ma gént. ah kon ngaa wut fi di gént. ku yaa waaw naa toog. maa ngi jéggalu de. waaye amul solo. donte sax dumay may mhm. waaye nag dama for rek ci ngay wax ak benn góor. ngeen di wax naan affaire xew bi boro bi ak xaalis yi yooyu ma bëggoon xam ni mu demee rek fii ci kër gi hmm. Badou Samb sama géwélu juddu bi ah <laughs> dama ne damay wut sax gynécologue moom weer wu jot jabar ji aussi weer wu jot daal mu ñëw ne ma damay ngénte jox ma hmm. <laughs> xam naa loolu nga dégg man sa doom la lo bu baax xanaa waxoon ni danga ma boot rogan ci ma ak sa njaago kon kay war nga maa wax li xew ndax man dégg naa mu naan la bor bi nga fay ko yooyu noonu moo tax ma bëgg a xam rek man du ma lépp de amee lu ma kenn bor ah man di ma wax rek du ma dellu ginnaaw waaw ah, baax na ko yàlla jàmm yàgg nee naa la yow laa jur ndeysaan ma faam MD MD haute couture. Fama doo bàyyi sa fawukaay yii. li li ma def nii damay faw lii foo la. aywa arrêté ma wax la sama fulla gi. Sina ma naa ko dangay foo. moo yàq réew mi. lan lan lan nga wax ban fulla. Hmm? naata mii. fu sori lay xool. ana naata sax moom. yow naata de yàlla da koo déey sama problème bi. ban problème. bor bi lan. moo ma ko wax laa di siina ay ay ay yow mii nag hmm. yow naa tam bu tëddoon ba guddi mu yeera sax ne la damaa yore angaari xaalis war laa fay say bor yow ko nooy def sa ba mu yëg sa bor kii de yàllaa ko ko dee mu ñëw xam ko di ma ko fajal tout ça bu ko wax bor bi bu ko wax bor bi gàtt bu gàtt nag moo gën bu gudd bu guddal gàcce gi man noonu dama choqué dama choqué mais moom mooy kilifa dan moom mooy jox dan xaalis bi mu lay jox kuy kilifa dan moom ay sa yaay yow yaay bés ko ah? boo rayee sa wax di lex di nga sentir douleur xam nga la may man manqué wu ma ba mel ni ñett yu ñaar di séddoo góor di sama jëkkër jigéen di ko jox mu di ma jox mais ci liggéeykaayam mu ko jiite jiitewu ko lim lay jox partenaire la jóge jiitewu ko problème bu la ngam man de laaj na ma te dinaa ko wax boo ko xelee dina dégg faama wàccal sa yaay faama wàccal sa yaay ñu ne yaay yéegal faama mu fa yaay yéegal faama dinaa waxante mu fay la yaay bàyyi loolu changer loolu kon nag xam nga man boobu ba tey maa ci impliqué wul den parce que bëggu mooy mu yem ni ci affaire bor mais soo demee ba na ko wax euh, naat gàcce bu gàtt moo gën bu gudd dan dinaa la fayal ko li nga ko fay fanaan na biti ku ci wax ak moom di ma tuutal man naa tamit mu duggee ci kër gi ba léegi je suis maigrir dama sentir tuuti daal. waaw je suis maigrir maigrir waaw je suis maigrir man. taa j'ai maigri j'ai maigri rek yëpp je suis la rek maigrir la rek. mooy man gis nga man je suis homme sentir tuma sama bopp. homme ba góor nga waaw homme homme mooy jeex. ah da nga homme. je dama nekk homme. ba ba ma eggale sama sinam bi parce que nee na yére yi mooy yére ene yi ene taay waaye yaay imaginer eh? ay yaay yàgg sama papa ndeysaan bu doon ñu fi ba ngeen ene. man bu eh, jeexee eh, dinaa ene di. ene waaw ene mooy fuddanu. ene mooy fuddanu ene taay laa la wax. ma ne yéen ko ci boole man dinaa fuddanu. boo <laughs> ene taay moom ba jiital sër yooyu ñuy kii ba sama yaay ak gëraam. <laughs> ene mooy fudda ene ma jaage tànn xam naa maa ngi dem mi ngi guddi. waaw merci beaucoup. nan la. chérie. dafa am benn ne c'est ma yóbbu liggéey. heure bii. xam nga sànq naa ko dafay am fàtte. naa la ko incha allah. baax na. dafa ah, na ma kii kii respecté wu ma yow yëndul rek nga ubbi buntu bi ataaya ji neex na nga furale ko tànk def nga ko benn yoon def ko ñaari yoon waaye na la leer na du ñett di nga xam ne wuyu bandee baayam yee nga nag liy nelaw ci man di nga xam ne lépp dëgg la déggoo téléphone jigéen a ko woo. da rey ne maa fi. Mm-hmm. damaa kontaan moo tax. kontaan. <laughs> Anam dem na. waa dem na. yow kii xanaa xamoon ne da jigéen la doon waxal ni jigéen ko jox naa def. jigéen. yaay. maas talul loolu. yow nga ne talu ko. talu ko de. ndax la ah, ah. torturé naa ko fi de. yow kii loolu da koo saf yow kii mbaale yàlla yow nee naa la kii ñu nekk defoon ko ci sursi mu delluwaat dellu ci na mu nekkaan di doxaan. nit da ngay jël sa destin amee yaa ngi dégg ah yow kii ñu lijjanti woon ay dossier ma jox ko procureur wan ak procureur euh, euh, Ngom mu ñëwaat di di di commencé di di doxaanaat fi mu toog fii yëpp ñuy reer mi naan vërët muy coupé te xale bi dafa muus da koy jaar di ko pincé naan ko nii. man de xam naa ne famille bi tam jaaxal na ah yaay tànta wayali doom wayali ñoom ñëpp amuñu koroñ pour lan ah, man lii maa dul xool fii seetaan li sama xol di dagg waay man. ko fi reer. waa xaaral. la reer bi yaay. ah man maa nekk nii. waaw ma jàppale di la dimbale doo jël sa destin yore ne di ko fawee nii. maa ngi jégal. waaye yow kii nga xam ne doxante coureur de support la voleur de confiance. madame Guèye. kaay. Hmm? toogal. yow taw si fi jógee léegi yaay. Mhm. gis nga ni muy réagir yow sa diggante ak Mass lan moo ci yoonam dégg nga li mu wax léegi si reerukaay bi xam nga la laa bëgg na ko limité nag yow boo ko limité wul man dinaa ko limité. tata te kii amul benn problème dafa maa bëgg donc moo tax mu may protéger comprendre loolu rek. protéger ba si lan. yow kii daaw la digal lu baax daaw la ko wax loo nga defee li ma toog sama kër gi man yëguma li xew man ngaa siisuma saa sone bu ko neexee na ñëw ndogu ak ñun comprendre nga parce que daf ñuy wéttali waare te léeg sax mu waxaale ñu ay histoire yu dural ñu reetaan mais nag gan du yeew yi bay nan ko limité de fexeel nga limité ko nag. baax na comme que noonu nga ko gisee dinaa xam nan naa koy gérer moom. di nga ko mën a gérer. dinaa ko gérer tata dalalal sa xel mi. kii dafa doy waar de. bàyyi noonu rek baareer nga ba suur. baareer naa neex na bare na. mën ko bokk. maa ngi dem ci biir ma xaw a sonn. waaw d'accord merci.